camion boo xam ne da ngaa war a génn dem voyagé dugg laa dugalaat nga dugalaat biir Touba taxaw fa boobu ñëwee indi marchandise dañ lay tourné waat nga taxawaat fële ba saa nga seen borom soxla ko ñu indiwaat la dañ leen arrêté kenn dugg ndax dañoo bokk xeex bi bëgg bu ñu tey bu njëriñ ñëwee ñun ñëpp ñu bokk ko jëriñoo kon ñoo war a taxaw seen i morom lu ñuy xeex lu ñuy xeex lu ñu am ñu bokk jël loolu tax ñu taxaw dañuy dund loo xam ne métti loo xam ne ci biir kaw tali bii dañ koy dund ak si yi di ko dund biir Dakar ak euh, Afrique PSS boobu moo taxoon ñu wàcc yi ci kaw tali bi ndax chauffeur amul jàmm Sénégal kenn considéré chauffeur kenn kenn nag amul kenn koo xam ne benn boo xam ne tey jii considéré benn amu fi tey dañoo bëgg oto bu fekkee ne oto bu ñu la dugg biir Touba ñu artale génnee la bu nga génnee biir Touba ñu artale dugg laal biir Touba kenn du du dox geraw bi la ñuy wax ne waxuñ oto daw sans démarrer la ñuy wax non démarrer geraw bi non la waaw loolu la wax benn permis à point yi ñaar police yi ak gendarme yi ak sabokat yi ak douane yi ak pont bascule yi ñeenteel bi nag mooy Kaolack euh, Dakar dakaar ba kaw ba frontière amul dëkk boo mën a taxaw jënd fa 110 wala tàngal ment wala tàngal mantifres wala café amul taxaw dëkk yëpp boo fa ñëw taxaw ñu jàpp la 12000 francs ngay fay sonoon nañu trop même temps amuñ parking ñaari foo dem sàcc yi waxu duñ sàcc duñ dañ lay siif yee la ba nga yeewu ñii la jox ma batterie wala ñu la